jëlee ci gaawal xadd solo nañ jëlee ci sahl ibnu saad radiallahu anhu mu ne moom daan na xadde këram gaawal ba pare yàkkamti ngir jot solo nañ jëlee ci ñoom sahl ibnu saad radiallahu anhu mu ne moom daan na sallallahu alayhi wa sallam baabu qadri kam bayna saxuuri wa salaati alfajr xaddatanaa muslim bnu ibrahima xaddatanaa hichaamun xaddatanaa qataadatu an anasin an zayd bni thaabitin radi allahu anh qaala tasaxarnaa maca annabiyi sala allahu alayhi wa sallama lamma qaama ila salaati qultu kam kaana bayna alaadaani wa saxuuri qaala qadru xamsiina aayatan gunti li nekk fi diggante fi ñuy xadde ak fi ñuy jullee suba moom toll daal ci jamono solo lañ jële ci zeyd ibn saabit radiallahu anhu mu ne xadd nañ ànd ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi jóg ci julli ga ngir jiite ji kii wax ak laaj ko ne ko diggante nodd gi ak fi ngeen doon xaddee nu mu toll mu ne ko mu ngi mel ni nga jàng juróom fukki aaya maanaam fi ñu xaddee ba pare ak fi ñu du jàng juróom fukki aaya ni suratul mursalaati mu ne noonu la toll ci jamono باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور xaddasanaa Muusaa bnu Ismaaciila xaddasanaa Juwayriyatu an Naaficin an Abdillaahi radiyallaahu anhu anna nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam waasala fa waasala annaas fa shaqqa alayhim fa nahaahum qaaluu innaka tuwaasil qaala lastu ka hayatikum inni adallu ut'amu wa usqaa bunti yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wax ne xadd barke la wala barke ngi ci indi mu ne ci lu duut nag ñu waral ko taxut nag mu wane ne dafa war dafa wane ne barke ngi ci ndax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saabaami jokkale nañ te jamono ba ñuy jokkale tudduñ xadd maanaam daawuñ xadd abdullahi solo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jokkale na nit ñi jokkale ànd ak moom maanaam or ba jant so duñ dog ñu continuer or guddi ga demaat ba ca ëllëg sa mu ne nit ñi toppandoor nañ yonent bi ci loolu mu métteeg ñoom yonent bi ay leen ko ñu ne ko yow yaa ngi koy def mu ne leen man bokk maak yéen man ñu may indal ci benn bërëb di ma fa leyal di ma fa dàndal kon man mën naa jokkale waaye yéen mënu leen ko sallallahu wa sallam حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة solo nañ jëlee ci Anas ibnu Malik radiyallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne dee leen xadd ndax xadd barke ngi ci sallallahu alayhi wa sallam baabu idaa nawaa binnahaari sawman wa qaalat ummu dardaai kaana abu dardaai yaquul indakum taamun fa in qulnaa laa qaala fa innii saaimun yawmi haadaa wa faalahu abu talhata wa abu hurayrata wa ibnu abbaasin wa xudayfatu radiyallaahu anhum xaddasanaa abu caasimin an yaziid bni abi cubaydin an salamata bni al-akwaaci radiyallaahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل bunti nit ku dem ba digg bëccëg nga door a ee ne ne da ngaa or mu ne Umu Darda wax na ne jëkkëram Abu Darda ñëw na ci kër gi laaj ko ne ko ndax lu ñu lekk am na fi mu ne ko déedéet mu ne kon man dama or tey sama bis bii tey dama ko or loolu nag mu ne abu talxata def na ko abu hurayra def na ko ibnu abbas tam def na ko xudayfatu radiallahu anhum ñooñu ñëpp ci saxaaba bokk def nañ ko abu asim sax moom nettali na na jëlee na ci yazid mu jëlee ci abu abd mu jëlee ci salamata ibn al akwa radiallahu anhu mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam woon na nit ak góor yónni woon na góor mu dem ci nit ñi eey na ne eey yéen nit ñi tey la bis tam xarit képp koo xam ne lekkoon nga danga mottali li des ci bis bi or ko walla danga ko or ku lekk gu toon itam bu lekk maanaam dem nañ ba digg bëccëg yonent bi door leen wax ne man ngeen a or li des si bëccëg bi ñu jàpp foofu mu leen yonent bi waxee yee na fa or la des si bëccëg yi tam xar boobu sallallahu alayhi wa sallam باب الصائم يصبح جنبا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة الحديث أخبر حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومين على المدينة فقال أبو, وقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند bunti nit ku oor ba pare xëy amee jana ba joo xam ne sangoogut ko mun a jëlee nañ ci malik mawla abi bakrin ibn abdurahman mu jëlee ci xaaris ibnu hisham ibnu mughayra mu ne dégg na Aba Bakr ibn Abdurahman mu wax ne nekkoon naa man ak suma baay waxtu ñuy dugg ci Aïchata ak Umu Salama lal nettali xadis ji mu ne solo nañ jëlee ci Abdurahman ibnu Xaaris mu jëlee ci ibnu Hisham mu ne baayam Abdurahman wax na Marwaan ne ko Aïchata ak Umu Salama nettali nañ ñoom ñaar na yonent bi sallallahu alayhi wa janaba daana ko dab fekk julleeguñ suba waaye daf daan xëy rek daal di or daf daan sangu rek xëy daal di or mu ne Marwaan ne wax Abdurahmaan ne ko gëj naa ci yàlla ne tey ma gëtan Abu Hurayra ci xadis yi ndax Abu Hurayra moom lam riwaaye mooy ne bis boobu daf ko war a fay waaye bis boobu daf ko war a dog ba pare fay ko ndax bis boobu mun mënta mënta mënu ko or te fekk ñoom dégg nañu Aïcha ak Umu Salama ñu nettali ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak yonent bi ci néegam nekk ay soxnaam yonent bi jana ba daana ko jot waaye dafay xëy rek sangu daal di continuer or korom Abubakar ne nettali loolu mu ne Abdourahman daal di sib loolu moom mu ne yàlla def ñu daje ci Zul Xulayfa mu ne fekk Abu Hurayra moo amoon foofu suuf soo xam ne dafa daan dem di fa noppalu mu ne wax Abu Hurayra ta ne ko danaa la nettali mbir moo xam ne suuf toxtoon ak li Marwaan gëñ kon duma ko duma la ko wax mais daal di ko nettali li nga xam ne moom lañ jëlee ci Ummu Salama ak Aïcha ne yonent bi daana amee janaba xëy rek daal di or te du ko yàqal dara te ñoom ñoo gën a xam ñoom jigéen ñi Fadl ibn Abbas mu ne ñoom ñoo gën a xam ñoom jigéen ñooñu ndax ñoom ñoo nekkoon ak yonent bi ci nekkam mu ne waaye Abu Hurayra moom la mu wax mooy ki nga xam ne dafa amee janaba ba fajar jot te sanguwut bis boobu daf ko war a dog waaye mu ne wax ju njëkk ji li umu salama wax ak aïchatu ne yonent bi daan na ko amee ba pare sangu daldi or bis boobu mu ne loolu mooy li gën a wér mooy li gën a dëgër itam mooy li gën am sanat mooy li gën a wér sallallahu alayhi wa sallam wa qaalat aïchatu radiyallahu يحرم عليه فرجها حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه mu ne nit ko oor ba pare di jonjoog jabaram Aysatu nag nee na lépp dagat na ko ba mu des pay mi bu mu jege pay mi solo dañ jëlee ci Aïcha radiallahu anha mu ne yonent bi salallahu alayhi wa daana or ba pare di foonante di jonjo ak jigéen ñi waaye nag wax na te moom yonent bi ne man maa leen gën a moom suma bakkan moo gën moom moom bakkanam maanaam yooyu yëpp mën na koo def te du ko yàqal kooram keneen nag koo xam ne mënoo ko jarul ko ci jéem a dugg sallallahu alayhi wa sallam wa qaala jabiru bnu zaydin ida nadara fa amna yutimmu sawma qaala ibnu wa qaala jaabir ibnu zaydin in nadara fa amna yutimmu sawma baabu lqublati lsaayimi xaddatanaa muhammad ibnu lmusanna xaddatanaa yaxya an hishamin qaala axbarani abi an aishata an annabiyi sal allahu alayhi wa sallama alxadis wa xaddatanaa abdullah ibnu maslamata an malikin an hishamin an abihi an aishata radiyallahu anha qaalat in kaana rasulullahi sal allahu alayhi wa sallama la yuqabilu bacda azwaajihi wa huwa saa'imun summa daxikat jaabir nee na su fekkee ne dafa xool jabaram ba mani yu génn ci moom mu ne kooku dafa mën naa matal kooram bis boobu waaye loolu nag xam naa ci uute nañoo xam ne koor googu dootu wér ak ñoom mukk lu may nga dog ba pare fay bis boobu solo nañ jëlee ci aïchatu mu jëlee ci yonent bi sallallahu solo nañ jëlee ci abdullah maslamata mu jëlee ci malik ibnu hisham mu jëlee ci malik jëlee ci hisham mu jëlee ci baayam jëlee ci aïcha radiallahu anha aïchatu ne yonent bi sallallahu alayhi wa na foonanteeg lenn jabaram te fekk mu oor mu ne Aysatu nag ba mu nettalee loolu ba pare dafa ree radiyallahu anha حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخميلة إذ حقت fansalaltu fa axadtu thiyaaba xaydati fa qaala ma laki anafisti qultu naam fa daxaltu maahu fi lxamila wa kaanat hiya wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yagtasilaani min inaa'in waaxidin wa kaana yuqabbiluha wa huwa saa'imun solo nañ jëlee ci Abu Salama jëlee ci Zeynab bintu Umm Salama jëlee ci yaayam mi nga xam ne soxna la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiallahu anhuma mu wax ne nekkoon naa man ak yonent bi ci benn dër dër maanaam fu ñu def ay ñax yu rafet nga xam ne dafay féex mu ne lii dal jigéen dal ma maanaam ma gis baaxi jigéen mu ne mu rocceeku rek ci càngaay li ma càng sangoon ak yonent bi daal di jël sumay yére yi mbërëg maanaam yére yi nga xam ne jigéen ju mbërëg moom lay war a jëfandikoo mu ne yonent bi ne lan la lan mu la dal ndax dangaa gis baax yi jigéen ma ne ko waaw mu ne ma dem jël yére yooyu sol ko ba pare ñëw duggaat ci dër bi nga xam ne ci lañ nekkoon maag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaye daan nañ sangu man ak moom moom yonent bi sallallahu wa sallam ci benn ndab mu dima fóon te fekk mu ngi oor moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam باب اغتسال الصائم فبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم wa qaala ibnu mascuudin ida kaana sawmu axadikum falyusbix dahiinan mutarajilan wa qaala anasun inna li abzana ataqaxamu fiihi wa ana saaimun wa yudkaru can annabiyi sallallahu alayhi wa sallama annahu staaka wa huwa saaimun wa qaala ibnu cumara yastaaku awwala nahaari wa aaxirahu wa laa yablacu riiqah wa qaala cataa'un in isdarada riiqahu laa aqulu yuftir wa qaala ibnu sirina laa ba'sa bis-siwaaki ar-ratbi قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا bunti nit ku oor ba pare di sangu ak ndox mu sedd ngir seddal yaramam Ibnu Umar radiyallahu anhuma mu ne daan na tooyal mbubb sol ko ngir féexal yaramam ci tàngaay koor te fekk mu ngi or mu ne caab yu itam daan na dugg ci xamaam yi yooyu ci réew yi arab yi la am di ci sangu te fekk mu ngi or ibnu abbas itam nee na moscin walla dara ndax xoromam ëpp na wala ëppul wala sukaram ëpp na wala ëppul mu a dara nekku ci xasan nee na gàllaxndiku itam pour seddal sa gémmiñ dara nekku ci lu itam ci ku oor maanaam dem fu sedd ngir seddal sa yaram mu ne dara nekku ci ibnu Mas'ud nee kenn ci yéen bu xëyee oor bu xëyee na diw boppam peñe ko te defaru daal bu baax loolu yàqul ci koor lama yudrikuhu alfajru junuban fi ramadana min gayri xulmin fa yaxtasilu wa yasuum ba tey xadis ji wéyoon moom lay waxaat ni ba tey mu ne solo nañ jële ci sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fajar daan na ko jot ci weeru koor te fekk mu ngi amee janaba joo xam ne sangoogut ko te du janaba joo xam ne ci góonti la mu ne waaye daf daan sangu rek daal di or bis boobu daawut koy xal kooram sallallahu alayhi wa sallam حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك ba tey solo nañ jëlee ci Abdurahman ibnu Xaaris ibnu Hisham mu ne dégg na Aboubacar ibnu Abdurahman mu wax ne man ak suma baay dem nañ ba dugg ci Aïchatu jabar yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi wax ne maa ngi seede ne biir Aïchatu wax ne maa ngi seede ne ci yonentu bi ne daan na xëy amee janaba yoo xam ne ci sëy la ko amee te duwul géwant waaye dafay sangu rek daldi or bis boobu mu ne dugg nañ itam ci umu salama nettali leen lu mel nii li Aysa nettali maanaam yonent bi daan na amee janaba fajar jot te sanguwut ko waaye dafay sangu rek daal di or bi waaye du ko yàqal koram